leen di nuyu kenn ku ci nekk sa tur di leen baal àq bu baax te di leen baal àq di ñaan yàlla suñu leen jéggal di bu baax teewaay di wax ne lii sant na ko lool ndax woo di ngeen woo ci sëñ moo tax ngeen wuy suñu ngir jëmmi sëñ Tuubaa setal Tuubaa moo ñu fi dajale tey li ëpp ci soxna yi nekk ci dëkk bu sell bi di Touba nosu nañ ci ay buum tudde seen bopp ay mbootaay mbootaay yooyu gis nañ ni li ëpp ci ñoom alxames fu takkusaan jotee mbaa lu ko gën a teel danañ génn kenn ku ci nekk di bàyyi seeni koñ ak di ko setal ñu gis ni loolu kat day initiative bu am solo boo xam ni bu ñu ko gungee encadré ko jàppale leen ci ay jumtuwaay man nañ ne Touba mën naa doon dëkk bi gën a set ci wàllu zahir ci Sénégal wetu penku gi recensé nañ fi ñeent fukk sow bi recensé nañ fi ñeent fukk gànnaar gi recensé nañ fi ñeent fukk bët saalum bi recensé nañ fi ñeent fukk siège Touba ca kanam ba nga xam jàmbaari collecteurs yi collectrices yi nga xam ne ña nga fa di yëngu ci Touba Ca Kanam jël nañ fa ñeent fukk soo ko boolee mooy toll ci ñaat téeméeri mbootaay yi nga xamal ne tey jii incha allahu rabbi fas yéene nañ leen a jébbal jumtuwaay yu am solo yii ngir ñu laabal ci dëkku Serigne Touba bi noonu lañ leen recensé muy lu maangu nga xam ne ñoom dañoo bàyyi ba alxames ñu wat ñu war a waat ci penk bi waat ci penk bi ñuy wàcc gànnaar ñuy wàcc sow ñuy wàcc bët saalum mbootaay yi ñu romb ñuy bale ñu taxaw wax ak ñoom laaj leen bind leen jël information yañ soxla ci ñoom dajale ko bañ ko dajalee nag indi ko moom lañ jël saytu ko mu toll ci ñaar téeméeri mbootaay ñaar téeméeri mbootaay yooyu ñu ngi toll ci dix mille cent soixante et un personnes parce que mbootaay yi bokkuñu ay lim kii day am juróom fukki membre kii am fanweer kii am ñeen fukk kii am juróom fukk noonu la waaye boo leen booleen li li ñaar téeméeri mbootaay li ñu toll ci ay mi ngi toll ci dix mille cent soixante et un individus ay personnes yoo xam ne ñoo ne ci biir mboot ñaar téeméeri mbootaay yooyu loolu nag dañ ko xaymaa ñaar téeméeri mbootaay yooyu ci jumtuwaay yi ñu leen war a jàppale te jumtuwaay yii ñu leen war a jàppale ñoom ñoo wax ni dañ koo soxla ndax ñoom ñoo wax ne dañoo soxla bale dañoo soxla paan bu ñuy tollee dañoo soxla tame dañoo soxla ratu dañoo soxla leneen ñu bind loolee nag bañ ko nattee ci ñaar téeméeri mbootaay yi nii la jumtuwaay yi séddalikoo nii lay bëgg wax bu dee bale yi mi ngi toll ci cinq mille soixante dix bale yoo xam ni Touba ca kanam fàggu na ko fas yéene koo joxe tey bu dee rato yi rato yi mi ngi toll ci sept cent onze muy juróom-ñaar téeméer ak fukk ak benn rato yoo xam ni fas yéene nañ koo joxe tey bu dee li nga xamante ni mooy tame yi mi ngi toll ci mille mooy ñaar téeméer eh, ak ñett téeméer yu tegal juróom ci ay tame yoo xam ne war nañ koo joxe tey li moom lañ war a joxe ci ay paan pan yi mooy boo layee def ko ci pan bi man koy yóbbu fi ñu ko war a sotti mi ngi toll ci quatre cent quatre-vingt-douze pan muy ñeenti téeméer ak juróom-ñeent fukk ak ñaar waaye nag mu am lu am solo loo xam ne dañ ko caa boole mooy dañoo bëgg yéen mbokki soxna yi bu ngeen génnee di laabal dëkkub sëñ Tuubaa bi yéen ñëpp li ngeen di sol benn lay doon yéen a koy nduróole nga xam ne tey su ngeen génnandoo alxemes solandoo mbubb yooyu jël buntu jumtuwaay yi di bale su avion bi taxawoon ci kaw tey di jël yéen ñëpp benn melokaan la ñuy gis mu doon loo xam ne lu taaru la lu rafet la waaye nag bu boobaa dana doon royuwaay Touba ci kanam dana doon royuwaay ci bépp dëkk boo xam ne bëgg ngaa copier initiative bu am solo bi nga xam ne Touba ci kanam nooru daara yi ni mi ngi koy def uniforme yooyu nag mooy déguisement yi nga xam ne da ngeen ko war a duróole mbootaay bu ci nekk suñ lay jox bale des na la joxaale li mu déguisement bi nga xam ne moom la war a àndal ñëw nañ ko ci ay anam yu wuute ñëw nañ ko ci taay yoo xam ne taay ku yamamaay la xaw a gàtt ku yam ku njool ku am yaram ku xaw a tuuti ak nangam yére yooyu mi ngi toll ci six mille neuf cent ci ay yére juróom benn junni yu tegal juróom-ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak ñeent ci ay yére yoo xam ne ay uniforme la yoo xam ne fas yéene leen leen koo jox tey ngir bu ngeen génnee di bari dëkk sëñ Tuubaa bi ngeen mën koo sol loolu nag Tuubaa ci kanam joxewu ko ngir ngeen denc ko da koo joxe ngir ngeen sol ko ci bisi alxames yi génn di laabal dëkk sëñ Tuubaa loolu moo tax mu joxe di wax ne nag liggéey bii dana am ab toppaat ci ginnaaw ndax fas yéene nañ tey ñi ñuy jox matériel bi tey bu subaa danañ wut ab équipe boo xam ne danañ ci tànn lu mat ñu fukk waa fukk ak juróom dawal seeni oto dem seeti leen seen koñ ndax sol nañ yére yëpp ak ndax it la taxoon ñu jox leen ko ña ngi koy def wala déet ndax loolu tamit dafay am solo bu fekkee ne yëgaa yëkkati jumtuwaay rek jox ko nit ñi ba pare bàyyi leen seen bopp ñu jël ko denc ko loolu taxuloon ñuy woote loolu tamit taxuloon ñuy joxe jumtuwaay waaye dana am ñu toppat ci ginnaaw di dem di saytu loolu di jaajëfal soxna yi yëpp nag bàyyi ñu kenn ndax wax dëgg yàlla ku gis saal bi rek am na jigéen ñi war ñu leen a jaajëfal bu baax a baax ñoo leen di masa ci coono bu baax ci coono yi wax gi yàlla ndax gis nañ seen taxawaay ci Touba Ca Kanam gis nañ seen yëpp gis nañ seen faale ci Touba Ca saa yi Touba Ca Kanam wootee yéen yëpp da di bàyyi seen yitte ngeen ñëw kon ñu leen a a di leen masaw coono te xam ne lii lépp liggéey Sëriñ Tuubaa waaye di leen gën a ñaax bu baax a baax képp koo xamante ni boo ko góor Tuubaa kanam kon lii war naa wane nga bokk ci kanam képp koo xamante ni yoroo carte wala bloc di jaay war ngaa jël si bloc jël si carte de yi nga jaay ko sa waa koñ ndax lii lépp firnde la ndax Tuubaa kanam lii mu def nii ab tàmbali la mi ngi tàmbalee ki ñaar téeméeri mbootaay waaye gëm li mu yéene mooy dëkk bi yépp am ay bare am ay ratu am déguisement am lépp loolu mooy yéene Touba ci kanam ku ñu recensé da nga jàpp xam ni yow la ci yàlla booleegul waaye yéene Touba ci kanam mooy fépp ku jigéen nekk di bare incha allahu rabbi am nañ yéene ji te incha allah dinañ ko def bu soobee yàlla dañoo tàmbalee ki ñaar téeméeri mbootaay yi waaye fépp ku mbootaay nekk ci dëkk bi yéene ji mooy dinañ ko egg incha allah dañoo bëgg daal Touba ci kanam fexe ba képp koo xamante ni mbootaay dafa ñu fekk la fa jox la yére jox la bale jox la ratu jox la tame jox la burwet lépp loo xamante ni day aaji ci rek su ma xital dina jàppale incha bi lu waral woote bi rek mooy dañoo am liggéey bu ñu bëgg mbootaayu jigéen ñi te moo di Touba set wecc liggéey la boo xam ne yéen a ci woon du ba léegi waaye ñu ñëw ngir jàppale leen ci ba ngeen am ay jumtuwaay yoo xam ne yéen ko may jëfandikoo ba dëkk bi set wecc moo tax lii dañ koy tuddee rek tàmbali waajal màggalu Tuubaa ci wàllu yëpp ci wàllu ndox mi ci wàllu cet bi ci wàllu garab yi waaye nag tey jii ci wàllu bale yi ndax am na mbokk yoo xam ne ñu ngi ko daan taxawee at mu nekk muy suñu mbokk Baay Faal yi ku ma seen sëñ Cheikh bu seen ak ñu nga àndal liggéey bi ñëpp rek dem nañu tàmbali liggéey bi defalul màggal bi ba nga xam ne bu ñëwee liggéey bi dana mel noo xam ne mosu ko mel di wax rek ne lii dal na xel lool ndax mbooloo mi fi teew ñoom rek bu ñu génnoon mel nañu bëgg mel ni kon daal bifi bi rek mooy fexe ba Touba sedd wecc ba bant sax doo ko mën a for mu ñu ànd ko yéen ba sëriñ bi am ci lépp mu ci bëgg mu nekk dëkk boo xam ne dëkk bu wert dëkk bu set dëkk bu naat di wax nag suñu mbokk jigéen ñi nga xam ne mooy deux cent mbootaay yi ñu tàmm du lu ci yem waaye ab tàmbali la kon képp koo xam ne dangaa yor mbootaay ci liggéey bi ak siw ci yow xamal ne ab door la boo xam ne boo xam ne jeexagul bu ñu jógee sa jàmm incha allah dinañ wéyal liggéey bi képp koo xam ne mën nga soxla ci ay jumtuwaay ngir mën a wéyal liggéey bi danga ko mën a am incha allahu salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu bokki bi di teew yëpp bokki taalibe yi maa ngi leen di nuyu yéen ñu ngi seen tubaab sax mi nga xam ne moo jël liggéey di la jox ay cantam ak ngërëmam ak kañam ak ñaaram ci yéen rawatina tey jii soxna yi nga xam ne may sant yàlla ci yéen baax a baax a baax ndax nii ngeen taxaw yéen soxna yi liggéey suñu tubaab yi yéen ko ñëpp lii ci waxam wane na ko kon sëñ waaye naka jëkk jigéen ñi seen bi jigéen moo nekk bi jigéen bi alxuraan nekkee benn téere képp ci àdduna jigéen la ko def wala nga biñ Seydina Omar jigéen moo ñu fi joxee bakkanam ci lislaam mooy suma jigéen bi seen tuwaay dajale ñaar si biir ñett ci jaaree jigéen ko déggoon jigéen yéen ñu baax ba àdduna yéen ñu baax ñëpp yéen la jaar kon jërë ngeen jëf jàkk yàlla na ñu la sant naa jërë tey bis la boo xam ne bis sant waaye ma dana yokk ndax jaajëf baat bi gàtt waaye ku dul du ko dégg te jëf ji rëy na lool lu ñu rëy daan wax léegi léegi ci am ëllëg sëñ Tuubaa bii doo sëñ Tuubaa laa waxoon ne demal Tuubaa tey seen barab ba te bële lu ñu liggéey lu mu doon bu ñu demee nekk ci liggéey bi ba ma biri kon nee na Tuubaa kuy seetal toll ne tàggu tax suba njëriñ la waaw ma ne dëkk bi njëkkee ak ni dañuy yem ndax ñun ñii bu sëñ Dawa jëm ci bëri ndax dañoo lool ndax comme ñun kenn ci ñun bu sëñ Dawa jëm dana gas sëñ yi may def dëkk bi mel nii mbedd yi mel nii lan jàmm waaye jaamu ñu jógee si yéen ñi xam ne yéen ñëpp ñu sax sëñ Dawa jëm nii yàlla yàlla sax sëñ bi lépp yàlla sëñ bi nga xam ne àdduna la xel sëñ bi baax na wax nga fii na ñaar téeméeri otaay yoo xam ne ñoom ñoo doon jëmbal liggéey bii ñu am liggéey daanaka ay yëngu bopp ay tame ay bare ay rajo ay milliards yi bari na ngeen gisee service bi daal waaye am naa yàq yu góor la dëkk si diwaan bi ñëpp si daal si diwaan bi suuf si saa rek bàcc nañ ko siyee tàmbali te bu am bu laajte bu teel may wax ne ba ki dégg ñu tàmbali defar. yoon woote woon na ne ne képp ku yàlla ma lool ba ci cent tonnes deux a def waaye mel na ñaan xam naa ci loolu ngeen def a def waaye fañ jëm dara du fa am nit àllaaxira nungi accompagnement li mu nangu mooy fret bala ñuy dem dawal li nga xam ne mooy juróom àll te bokk na liggéey si waaw si waaw kenn ko liggéeyal bëri mu ne fii ak ñun kon mbootaay bi groupement bu nekk ñu ñaata na jaay bi Sëriñ Tuubaa jox ko seen suwaan soxla yi fa nekk ñu nga jaay bu baax a a baax léegi ñu ñëw rek ñu bari bari war nañu nga xam ne lépp fi ñu tàmbalee liggéey bii yëpp lépp jël ko kon kon ñu gën a dundal waaye nag ngay xam ne li nekk di ko si tuwaat laa leen ko xamal dëkk ak moom di gese la di tàggee si tuwaat di ko suñu tuwaat waaye ko suñu tuwaat mel nii rek yaa di ko suñu tuwaat ndax wax ne duur yi wamaa yëtmu jëlaan yi naaj yi tuñu jaari bi xuraan yàlla si subhaanahu wa taala moo xam ne soo dëkkandoo dëkkandoo li fet dañu fet fet lañu tàggee la moo mënee fukk jaay juróom léegi loolu ñàkk bi dara gàpp ñu àgg fa jëm ñu doon amu fi dara loolu ndax yàlla jàll bis kon na ngeen góorgóorlu bu baax xam ne yéen def kenn na ko leen Touba Ca Kanam laaj bi moom def ko xam ne waaye war a fi suñu loolu dañ ko boole laaj bi moom man di ko def xam di ko war a bañ a suñu noonu rek la bu ngeen gisee dafa manqué lépp amuñu ay jafe waaye lépp mën naa di saafara bu ñaar téeméer yi di ñëw rek jaay ci bi ñëw mbedd yi bu war lépp dañu def soo yàlla dëkk bi fu na am kee jafe-jafe insha allahu taala ñun mënuñu yore ba duñ ci xaar kenn duñ ci xaar man sàmm ci xaar dañ dem rek suñu tubaab dañu fekk dem naa ñëw nii ay benn benn ñi nga xam ne ñëw ñëw ci liggéey bi lu ñëw di wax nga xam ne kat seetaan ñetaan suñu tubaab rek seetaan ñetaan te ku nekk léegi kon sama ko daa jàppalee wóor na ma ne liggéey suñu tubaab kenn duñu war a kenn mënu liggéey suñu tubaab ba kat képp koo xam liggéey suñu tubaab dañu dëgg ci yoon suñu tubaab ñu saa di rey rek bàcc loolu bu bu ñu liggéey suñu tubaab yokku woo xool ci boppam li nga wax dëgg bi ci yow waaye kenn mënu gis daal suñu daan kenn nga xam ne may dëgg bi insha Allah maa ngi sant maa ngi gërëm kon mbootaay yi ñu ñëwee fii yow mbootaay nga jaay ci comme rek ñuy di ko def ci dëkk bi dëkk bi daal balaa màgg gi ñëw nga am nga def sakkal bi soo xam ne monsieur Ndiaye lamp yi moom assez bu nag ñëw di lamp ñëw na nga xam ne fii ko ko mënte lépp dana mat ñeent fukki lamp ñaar fukki lamp yi manqué ñeent fukki lamp te seen jëf rek la liggéey bi bu doon téeméer jël ñeent fukki ko def kon kenn ngeen laa leen kon gàcce ngaa dama ñëw yàlla yàlla fay su ko sëñ bi muy soo jëlee ko suñu waare mii ngaa taxaw kaw si waa dal ko si dos takk saan wax wii ñu gisee kaw si waa mu seen salaamaaleykum wa rahmatulah